Africa. mu gane àdduna fii ci Sénégal ci atum 1770 ñu tegoon ko loxo ci bu mu amee fanweeru at ak juróom-ñaar Omar Ibn Saïd doonoon na ku siiwoon fale sa Caroline du Nord doonoon ku ñu fonkoon ndax jàng bi mu jàngoon ci kàllaama arab ci lu tollu ci ñaari fukki at ak juróom mu doonoon kenn ku ko amoon ci jamono jooju nga xamante ne esclave yi amuñu woon droit jàng Omar Ibn Saïd doona doon Sénégal ba tasewul woon ak tubaab yi ci ay kaddoom mu naan ginnaaw bi ma pare jàng dama delloo sama dëkk juróom benn at laata tubaab yi ñëw sama réew duñu jëlsi daldi fàtt yu bari daldi ma jàpp daal di ma jaay ab chrétien mu daldi ma yóbbu ci ab bateau bu mag ginnaaw weer ak lu topp ci yoon bi mu nekk ci bateau bi Omar Ibn Saïd daal di egg ci Amérique fa lañ ko jaayaate nit ku soxor ku gëmul yàlla te ku wor ak di ko mettital mu jël ndogal daldi di dox lu tollu ci weer ñu ko jàpp yóbbu ko ci kaso ba mu def fukki fan ak juróom benn laata ñu koy jaayaat beneen famille bu mu jàpp ne moo tane ndax li ñuy lekk lay lekk te bu ñu solee yëre ba bëggatuñu ko ñu may ko ko Umar ibn Sayid di xamle ni laata ñu koy jàpp jaam jullit la woon mu ngi koy xamle ci témoignage ab jullit la woon daa daan julli juróom waxtu yi daan joxe azaka daan saraxe da doon jihad ak ñi xeek noonu islaam yi waaye itam daan dem Makka Umar ibn Sayid daal di génn àdduna ci atum am lu toll ci juróom-ñeent fukk at ak ñeent atum 1991 waa Fayetteville du Nord delloo ko njukkal tuddee ko jàkka Machid Omar Ibn Saïd ci fàttali moom Omar Ibn Saïd ab bindkat la woon yile seede mu ko bind ci ab téere ci kàllaama arab kooku moo nekkoon Omar Ibn Saïd doonoon kenn ku ñu yeewi ci jàmm yu ñu jàppoon ci Sénégal rawatina ci Afrique yépp yal na ko yàlla yërëm allahuma amin